waaye xaaral ma góor suma jëkkër xam naa ne moom dina ko réglé ah chéri da nga war a ut visa card bu standard chartered bank boo amee visa card bu standard chartered bank dugal ko sa machine yii nga dugal sa pin pin bi mooy nomba bi nga xam ne yow kenn rek yaa ko xam te am ko machine bi dina la laaj lan nga bugg a def ndax da nga bugg a génne xaalis ndax da nga bugg a seet ñaata nga deselee si xaalis ndax da nga bugg a print sa statement man xaalis laa soxla ma def cash withdrawal dina ma laaj ndax dama soxla receipt ma ne ko waaw soxla naa receipt parce que man damay denc receipt pour suma kayit yi dina ma laaj ñaata laa soxla ma ne ko ñaari junne wande dinaa mën a jël ba ñeenti junne saa yu ma dugalee suma karta bi bu dee xaalis baa ngi fa léegi jël naa suma bi ak suma xaalis gis nga gaaw yomba te wóor jërëjëf waay suma chéri utu leen visa card bu Standard Chartered Bank tey pour jot seen xaalis saa yoo ko soxlee waxtu boo ko soxlee ak fépp si si Standard Chartered here for customers Standard Chartered here for good Standard Chartered Bank. Here, for good. My daughter, can you quickly drive me to Standard Chartered Bank branch in Banjul? Dad, what's the rush? I am going to get a statement of my account. Dad, you now don't have to wait for your account statement as they can be sent direct into your inbox. Wait a minute. Can you repeat what you've just said? With Standard Chartered e-statement, you now don't have to go to any branch to get your statement or wait for the post. The bank can send you your statement via email. It is safe and convenient. Hmm, sounds interesting. And you know what? It will save the environment too. You also have the freedom to choose the frequency of your choice, daily, weekly, bi-weekly or monthly, and the bank will send it straight into your inbox. That means my account information will be at my fingertips. That's true. And you can access your statement anywhere in the world at any time. Does it come with charges? It is absolutely free. Thank you. I am going to apply right now. Standard Chapter uses the very latest technology to make banking more convenient. For more information, information, please visit your nearest branch. Standard Chartered Bank, here for good. Um, welcome back, viewers. And now, new uh, delhi si waat rek continuer waxtaan gi um, ñu delluwaat si Lamine Lamine boo dem For nani yubu yóbbuwaale woon nga sa visa electron card te solen leen fàttalikoo last programme yi ñu doon visa electron bi ak njëriñ bu nekk si visa electron bi ban njëriñ la la amal boo demee ak sa visa electron card bi. Modou visa electronic card bi am na njëriñ. am na njëriñ lool parce que bi maa dem yóbbuwuma xaalis. Mm-hmm. maa ngi amee visa électronique bi suma wallet. Mm-hmm. ku soxla xaalis. loolu mm-hmm. xaalis la. soxlu loo xaalis. xaalis bu nga xam ne. da ko def sa poos da ko def sa poos rek dema moom dema moom rek mm. doo xalaat ne dinañ ma tafu mm. tafukat yi ñu ngi foofu de mm-hmm. ah fa waaw mm-hmm. so visa électronique bi use naa ko fu nekka mm-hmm. use naa ko si airport bi waaw ah, dem naa si bitig bi bitig bu ñoo nga xam ne ñu ngi ko duty free shop foofu ngay mën a jëndee ay bagages jëndal naa soxna si liskoloñ ah. use naa ko si supermarket bi supermarket use naa ko si restaurant yi restaurant yi Euh, yëpp using visa card yëpp visa card bi rek. teg rek boo doon apply sa visa euh, application bi pour dem UK tamit. boobu laa use. bi ma demee visa card bi laa use ma fay pour fay suma visa visa lifin bi. even pour ma wax ak suma njoboot back home fii. waaw visa card bi laa use jënd crédit. jënd crédit. moom laa use pour jëndaay bagage gifts yi nga xam ne yooyu laa isil su ma am di jaamay jaamay exactly kon visa card bi am nañ njëriñ lool. waaw yala modu visa ka do nya nafa soto le mm ay nafa soto ba ba ba kale yep ni mobe tamala mm -hmm. yama yama jari ye ye ko ye ko di koroso fa musamba mm -hmm. visa ka do bulela ji foko no do wa da visa ka andusa yusno dunia karo vela mm -hmm. visa logo be visa ka le use mm -hmm. nga hotel oto nga use je mm -hmm. train train station oto nga use je nga use dara bagas sangol la nga caravane dima dimajan ko men sanna na muso nga visa karo o landi nyako exactly credit consular credit ko pour gambia kumandi mm -hmm. visa ka so card card dila exactly exactly hanina visa application o me ngajo pour british embassy na visa mm-hmm. visa karo o ngajo wala ah, visa karo o e na fa sotol okay okay wa mungo képp koo xam ne amuloo visa card bimo opportunity mooy opportunité bi pour nga ñëw Standard Chartered ubbi fa account apply pour visa card visa card njëriñam bi bari na di nga si mun a génnee xaalis si ATM machine yi ñaata countries yoo mun a dem saa yoo demee gis visa logo bi nga dugal génnee sa xaalis di ko mun a use pour online shopping di nga ko mun a use si supermarket si di nga ko mun a use pour def sa application bi su dee yaa ngi apply pour visa pour dem UK waaye balaa ñoo tëj rek dañ buggoon a ñëwaat baak si peer su ko defee mu continuer rek in two minutes naka la jeexalee daal ba football ba dooree ak ba jeexee ak ba gaay di ñib si gis nga football bi nag mhm. man cat laa ko ooye mhm. because Liverpool buñ winoon mhm. foog naa hôtel bi ñu nekkoon waaw ten floor hôtel boobu noonu <laughs> ndig la ma fa gis guddi gi balaa football bi si football bi muy samedi ji ci guddi waaw parti bi fa nekkoon ci baa bi foofu noonu waaw buñ gagné woon. Liverpool ni ngoon be suba. non ni ni Liverpool gagné tanu ni Liverpool gagné tanu molta kunna Liverpool saato fan kono mm-hmm. a betata Liverpool ma win wala non lu père wax la rek cat la mm-hmm. ni fu mu nekk nii xëj na ñu ngi wax ne win nañ ligue bi waaw waaye yàlla baax na opportunité banque fa benn tey xëj na mun nañ koo win mm-hmm. jërëjëf so mbokk yi fii la ñoo em ak tey di leen fàttali rek ne Standard Chartered nekk nañ fi téeméeri at ak dara koo xam ne bugga nga security ñëwal Standard Chartered koo xam ne bugga nga lu wóor ñëwal Standard Chartered te Standard Chartered visa card bi tamit am na njëriñ lool am na security dinga ko mun a use simple na loo soxla si sa mbiri banking Standard Chartered yéen lañ fi nekkal mbokk jën jëf kon donc ba beneen yoon si seen Standard charter time jërëjëf jëf Père. jërëjëf Standard charter Standard Chartered here for good. Standard Chartered. Five new ATMs. At Standard Chartered Bank, our customers come first. Standard Chartered have promised to be here for customers. That's why we have now installed five new ATMs away from our branches for customer convenience. This makes a total of 10 ATMs across the country, which means as a Standard Chartered Bank customer, you will never be short of cash. ATMs will always be nearby. You can do more than cash withdrawals at our ATMs. You can also do checkbook requests, statement requests, mini statement requests, funds transfer, balance inquiry, and PIN change requests. Our Five new ATMs are located at Bruceby Turntable, Cape Point at Cape Point Hotel, Brikama Gulp, Bakote Gulp, and Churchestown Gulp. That's five new ATMs. Standard chart.